bon man maa ngi tudd Ousmane Boñan dëkk xaar yàlla fii koñ jibo euh, affaire bi depuis démb ci ngoon la commencé école de football suñu suñu suñu depuis démb ci ngoon suñu sélection bi moo doon joué démb ci ngoon du woon centre bi ba ñëwee fii di football ay 17 ñu fekk ay plateau conteneur garé fii plus de 15 xaw ma 20 plateau ñu fekk leen ñu garé ko ñenn ñi garé nañ ci biir terrain ba terrain bi occupé ba ñu xam ne instant bi terrain bi occupé na ñu jël terrain bu mag bi ñu fekk leen fa ñu ne leen génne leen seen conteneur bi ci terrain bu mag bi ndax ñun dañuy football ñu ne et puis yéen sax kan moo leen wax pour ngeen garé lii parce que fi ngeen koy wàccee yéen nii am na ñu fiy football ñu ne mairie bi ak chef de quartier bi pour ñu wàccee ko fii ñu ne maire bi ak ah, ñoo gën a ne nit ñi dañuy fuwal fii ñu leen ñu jox pour ngeen wàccee fii loolu pour lan ñu ne ah ñoom daal ndigal lañ jot ñu ne leen am problème ñun génne leen lii bañ pare ci terrain bi après ñu ñëw wax ak yéen bañ génnee conteneur bi nekkoon ci terrain bi ñu ñëw bañ fubalee pare vers ay 19 heures 20 heures ñu ñëw fekk leen fi ñu nekk xam ngeen ne lii li ngeen wàccee fii du yoon fii dafa xat mënoo leen ko fi wàccee ñu ne non dañ ko fi wàccee ndax dinañ xam nuñ koy rangé les petits patata wax xam nga sénégale bu amee branlon bu ko yónnee dara rek day am fit parce que danaan doo ko laal ndax boo ko laalee kooku da koy protéger ñu wax ñoom wax ak ñoom ñu indi seen remorque wàccee affaire yi niñ ko rangalee baaxul ñun boole wuñ ci wax ñu dem ñëw tey suba huit heures ñu ñëw entraînement suñu centre formation bi Xarale FC ñu ñëw di entraîner ci terrain bi entraîner ba pare vers ay dix heures ñu toog suñu coach bi war ñu briefing ñu briefing ba pare ñun niñ toogee di briefing di teg suñu daal rek suñu daal sax yegale wuñ ko faf dégg saa dégg ay yuuxu fekk ñett ñeent booy ñi ngi woon fii toog ñun ñu ngi leen gis ñu ngi woon fii toog di fo dégg saa dégg ay yuuxu ndaxte booy niñ toogee woon ci kaw xeer yi di fo benn xeer bi moo barasiku parce que niñ ko tegee baaxul booy yi ci suuf xeer bi tegu benn booy bi ci biir bi benn booy bi ci loos bi benn booy bi ci tànk yi suñu ko prési bi booy yuuxu benn booy ba mu yuuxu yuuxu waatul fa la jaaree wàcc yeneen booy continuer du yuuxu suñu prési bi tourné dégg yuuxu rek mu ne ay eh, jug leen ngeen daw am na lu xew fee ñañ jógee ñëw di daw gis booy ci suufu xeer yi suñ suñ coach bi taxaw gën ñu yuuxu nañu jug leen ngeen ñëw jug leen yéen ñoom ngeen ñëw ñun bañ jógee ñëw ba ñëw xam nga sept personnes environ sept wala dix personnes ñoo yëkkati xeer bi te mënu ñu loo wax ñun nii lañ ko yëkkati xoolal xeer yi nu mu toll kan moo ñu may doole ñu yëkkati dañ ko xam te dañoo ñëw teg loxo rek xeer bi jug ñu rocc booy benn booy bi dee sur le coup beneen booy bi nekkoon si diggante dund ak dee sukuraat benn booy bi tànk yi yàqu na booy yi bu ñu baree ba bare ay sept sept ans la ñuy am ay booy yu ndaw boo yooyu moom bu ñu dundoon sax dañuy sonal seen waajur juri ndax ci état bi ñu nekkoon ñu jël yóbbu ci dispensaire bi comme moo ñu gën a jege amuñu amuñu woon beneen solution ñu yóbbu ci dispensaire bi ba ñu yóbboo ci dispensaire bi médecin yi di dugg di génn di dooroflu benn médecin bi génn def nii beneen médecin man leen eh man benn booy bi dee na. gaa man benn booy bi dee na des na beneen booy bi. nañ dundee yaakaar même pas 30 minutes ñu génn ñu même pas 30 minutes ñu nañ beneen booy bi tamit dee na léegi mu des kenn ki tànk yi yàqu léegi ma lay ñu laaj quoi loolu noonu ñoom fa lañ ko teg lan la quoi ñun xaar yàlla lan moo nekk ci ñun lu nekkul ci yeneen gox lii terrain de football la c' est pour jouer c' est pour les enfants ñoom bu ñu fubalul fii fa la ñuy fubal ci tali bi suñ fubalee ci tali bi seen yaay dàq leen ne leen tali bi wóorul oto yi dem leen terrain lii lii yoon la. xoola xoola xoola regard yooyu deux ans plus de deux ans mi ngi fi projet bi demul ñëwul tali buñ dagg xaar yàlla duñ ko defaraat du mairie mooy ñëw du adjoint maire mooy ñëw du kenn mooy ñëw du ñu rendre compte ñu daal xamal la la ñu dañu tegee population bi comme poubelle ñoom ñuy def lu leen neex ñun ñu toog di leen seetaan di gas di suul fu ñu gas duñ ko defaraat duñ fa jaaraat lu leen neex la ñuy def boo waxee ñu ne la yéen la ñuy liggéeyal loolu la ñuy tontu keroog sama koñ fay histoire am na fa ndax loolu gars yi dañoo gas li ñu defaree affaire bu normal ñu bàyyi ko fa nawet bi ñëw inondé foofu yëpp ci kàmb bi ba ñëwee l'autre jour waaj di wax ak ñoom dafa mujjee doon xeex ak ñoom xam lan lañ ko tontu yéen la ñuy liggéeyal mais looy liggéey nga la yàlla projet la c'est privé gasal ba mu rafet nga defar li ngay defar suul maasale defar mu rafet après ngeen génn dem ñun loolu bëgg nañ parce que mairie mënul lu dul liggéeyal goo xam bu ñuy liggéeyal ci logique ñun dañuy nangu loolu noonu. mais mënuñu di def lu leen neex ñun bu ñu waxee suñu wax duñ ko considère parce que ñun nañ waxante dëgg mais suñu population suñu maire considéré wuñu bu ñu waxee du ñu déglu dégluwuñ jeune xaar yàlla grand yow lan lañ ñuy wax ñun foo ñu fekk xaar yàlla bandi xaar yàlla sàcc xaar yàlla agresseur xaar yàlla jaakatu yàmba mais ñoom juruñu doom yu gën ñun seen yaay neuf mois la ñun ëmb ñi ñi soi-disant ñi ñuy wax ñooy doom boos yi ñoo dëkk ci lieu yu yu chic yi seen yaay neuf mois la ñun ëmb ñun suñu yaay ñaata mois la ñu ëmb du neuf fa lañ juddoo clinique wala hôpital ñun fa lañ juddoo du clinique wala hôpital ban lan lañ ñu gën fa yàlla lan lañ ñu gën bu leen neexee ñu ne alalu àdduna la ñuy puukaree wu ñun taluñu loolu suñu avenir moo ñu gënal lu ñu mëntee am ñun waa xaar yàlla bu fekkee nag suñu paay la ñuy corrompre di leen jox ñooñu dañ koy jël dañuy daw dépense jamono moo métti man dama koy wax dañ koy jël lu leen jox dañ koy jël parce que ils n'ont pas le choix ñoom ñoo leen waroon dimbali defal leen ay pension yoo xam ne suñu retraité dinañ am si luñ jàpp soo leen ko defarul boo ñëw corrompu ci benn pas vingt mille da nga xam këram nu mu toogee du koy jël mais ñoom ñoo war a bàyyi pas yi ñuy corrompu ñëw si ñun zone yi ñu liggéeyal ñu ndax suba ñoom dañuy dem ñun ñun ñoo fiy des ñun ñoo xam lu gox bi laaj ñoo xam lu quartier bi laaj ñu jox ko ko te dañ koy teg ci yoon lii buñ fekkoon ñun ak ñun rek fii du fi mus a tegu du fi mus a tegu. mais nous sommes en parce que lii déjà jógeegu fi danger ba léegi mi ngi fi on sait jamais xale moom xale la rek moom day gis fu nit doyoo sax suba nga seen ko fa mag ko daw suba nga gis ko fa mënu ci dara léegi lenn moo am ñun pare nañ quoi pour lii jóge fi xuloowuñ xeexuñu soxlawuñ police soxlawuñ gendarmerie soxlawuñ kenn mairie bi xam la lañ soxla ci moom mu nekk suñu ginnaaw soxlawuñ ko suñu kanam de na nekk suñu ginnaaw ñu ànd xeex lii mu jóge fi ñun loolu lañ bëgg